sifle na Baba Diakhar Clémenceau ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu Baba Diakhar ma ngay arrière Baba Diakhar Clémenceau ndeysaan Clémenceau door na daw na jëli Baba Diakhar Baba Diakhar rëppal na ko daanu na Baba Diakhar daan na Clémenceau Baba Diakhar daan na ko oh, Clémenceau daanu na jël bu ko bett Clémenceau daanu na jël bu ko bett ndeysaan xoolal waa ji oh ndeysaan oh image bu rafet waay xoolal lii ndeysaan xoolal lii ndeysaan mbokk nday koy jur jàpp na Baba Jaxal ndeysaan na ko Baba Jaxal daan jël bu rëy